devise bi ñu jox ren gàmmu gi moo di al xifaad ala turas ala turas masuliyat jiili al muasir sàmm suñu patrimoine bii ñu jële ci yonent bi responsabilité jeunesse contemporaine bi ndaw yi ñoo moom léegi diine parce mbooloo mu gis mu daje ñetti mag nga ciy fekk li ci des ñëpp ay ndaw lañu kon ku leen jox diine ñoo ko moom ku leen ko joxul ñoo ko moom lu fiy dox rek soxla ba ci ñuy doxal politique ku ci ndaw yi jublu rekk nga am la nga bëgg ku ñuy ndaw yi woon gannaaw maa la di tay su ko defee kon ñu ngi leen di wax nii devise bi ren yéen ndaw yi yéen ko moom yéen a war a protéger suñu ndono lii ñu fi mag ñi bàyyi boole nag bu yàlla bi inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu lahafizun yàlla ne maa ko wàcce maa koy wattu moo tax dina la ci mënaan rek toogal di ko xool yow moomoo ko moomoo ko kon ku ne ci xëbal rek toogal nit ko yàlla lay amal affaire waaye du yow su ko defee nag kon euh, ñu seet importance su wattu diine koy wattu it dafa am nooy war a mel nag ñun la yaa koy wattu lu day noonu loolu defe naa ni cër mënu koo gën a kawe li fi ñoom Alxaaji Malik ñoom Serigne Touba ñoom Cheikh Saadu Abi ñoom Cheikh Bukunta ñoom Alxaaji Abdoulahi Niass mag ñu baax ñooñu mag yàlla yooyu ak ñu dema na ñoom ci réew mi euh, li ñu fi bàyyi tey ku ñu ni ci ña koy wattu nga bokk adresse gënatu ko rafet tirit gënatu ko mag ñu war ko sàmm-sàmm boo xam nag daa yéen ndaw ñi dangeen ko sàmm ñun sàmm lañ ko ba ngeen yegg si ma bokk ci seen loxo Serigne Cheikh Tidiane mii nga xam ne nag tey mooy xalifa bi nee na mujj mu réer gàcce la ah mujj puso mu réer gàcce la héritage boo xam ne ñi ko passé ñëpp sàmm nañ ko def ci lu ñu ba mu mujj sa loxo nag yow nga fexe ba ñu yeb ko fexe ba mu wàcc la koy yëkkati amoon ca dara kooku gàcce la kon léegi yéen ndaw ñi yéen ko moom ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax li ñu tànn ko jox leen ko dañu gis ñi ko affronté bari lislaam dafa bari noonu te noon yi dañu bari doole ndax noon bu am xam-xam am xaalis am xel am arme boobu noonu def ko faas yombul te gis ngeen ni ñu séddalee lislaam bi ci dëkk yëpp fexe nañ ba waa dëkk baa nga jaamaarloo ñoom ci seen bopp foo demee tey Syrie xale ya dañ ni woon dañuy redressé politique bi réew ma tey la fa yàq fekk deux cents ans du baax du jagati ñoom ñaari groupe yi koy xëcc ku ci am victoire it am nga yenn rëy a ci delloo si réew mi mu am jàmm tabaxaat ko ñu fàtte ña fa dee ci ay homme de valeur ay xaleel ay jigéen loolu kuñ ni yaa koy donn wallaay yaay am nga yaddulis nga dem Égypte noonu état baa ngay jaamaanu xale li ñu war dañuy redressé waaye def naa ni jagagul de ndax ñaar bu ñu dee xëccoo ku ci am bu ñëpp ñàkkee xel day day day ñàng te fee mu nekk nag ñëpp ñàkkee xel xale yee amatuñu xel parce sax ndaw du muus lu ëpp atam loolu moom lu ñu nattu la sama bàyyi daf ñu ko daan wax léeg benn problème ñëw mu jël bii position ñu jël bii mun doomam ñu ah bii góor gi du baax ndax nangam nangam ñu ne waaw leen dara bii moo gën ñu dem ba ca fin bi mu yeey ñu ñëw nag di reen ah gi yeey gën leen di yeey ji ndaw du mu suur baata defee tey ma ngay gën a ñaaw rek ñu jiite ay charge su nga dem Tunisie gis nga ko nga dem Liban gis ko nga dem Mali gi commencé la yooyu yëpp nag ku ni mooy sa ndono fexeel ba bu mu laal sa réew am nga ndono bu diis a diis a diis a diis loolu tax na ñu war a taxaw ñu ñëpp yéen xale yi ñu mag ñu taxaw di leen ñaanal yàlla mais di leen encouragé maa ngi di leen jox suñu xel ndax lu bon bon nag ñoo leen ëpp xel ndax ki dund jamono ba génn ko nag loolu ci gën a xereñ su ko defee waaye ngeen góorgóorlu rek te collaborer ak mag ñi bu leen dem ak seen bopp yéen rek du sotti ñu fa ngeen collaborer ak mag ñi mag ñi jox leen seeni xalaat ak seeni expérience waaw ngeen xam ni adduna xel a koy doxal waaye xol du ko doxal àdduna ju xel doxal mu texe waaye àdduna ju xol doxal day texe su ko defee na kon moo tax ñu jox leen ko sëriñ bi tànn loolu jox nu ko pour nu jox leen ko euh, yéenay mën a xam itam fi ngeen di jaar beeg suppluwaati ko et xamal ko génération yii di ñëw yéen itam mais lu ci nekk rek ngeen def ko ci niveau bu mu gën a kawe euh, gën a ndax lu nekk ci lislaam moom dafa bëgg nga def ko rek niveau bu mu gën a kawe moo tax jaamu yàlla sax bu dee njàpp parce que mënoo am. benn jaamu bu yàlla nangu te laaboo te laaboo te laab nag dafa jafe da gis ko defe ni laab na ba kucc kuccal ba gën seen fekk ñu ngi ko fas tegal ko cër ko ba bu ñëwee ëllëg yàlla di ko soxlaawoon ko noonu looy wax moo looy def na ko def ci niveau bu mu gën a kawee booy jàpp na jàpp njàpp mu tooy mu raxas na nga raxas waxuñu nga raay buy julli na nga julli julli goo teewlu julli goo xam ni rukkoo yaag sujjóot yaag toog yaag yépp mat na boobu la yàlla bëgg yàlla boo ko joxee lu matul rek mu delloo la te xamoo fu mu nekk benn naan ko def la suñu benn mbokku catholique doon wax mu ni eh, ëllëg bu ñu demee alxuraan eh, du demee alxuraan ak eh, yomal xew kan la alxuraan ngeen demee yéen ñëpp yàlla daf leen di dàq mu ni bàyyi faal yi dañ leen di dàq parce que seen njëñ dafa sëq te duñ ko peñee duñ ko raxas ñu koy xaadir yi mu ñu ñooy fee tànqal nit ñi di tëgga tabare yi guddi kenn yi ko tijaan yi mu ñu dañu baxi tiital dafa ni ñoo gën nit ñi mais ñoo ñëpp bu ñëw malaaka bi daf leen dàq dem leen ubbi ne ba yàgg sa tijaan yi ma ni waaw yéen sax au moins que poxo poxo ngeen propriété rek la ñuy dugg àjjana loolu dafa daal doy ne doomu naa yi nag ñooy mujj ñëw malaaka mi dàq leen ñu waaye noonu noonu waaye dañu demoon sangu xam nga ndax àjjana ku ci dugg dangaa ngeen fi mais yàlla sëpp ni lan la yaa yàlla dimbale ñu waaye malaaka yi daf mel du ñu dugg eh, dañu demoon rek sangu ji ak solu mu ne ah waaw bàyyi leen ñu dugg ñu ñun waa Hizbut Maryama nag ñu ñëw fëgg malaaka mi ñooñ ña na ñu di ko waa kër Hizbut Maryama ñooy faj nit ñi ñooy tabax école yi ñooy yar orphelin yi isim Maryam mun ko sii sii dugal leen ci salon de naaw waaye yow nag jéem ngi lii moom li la neex rek bàyyi lu la ak waaye que wax nga dëgg ku ne ku ne ku ne ci tey sa kanam mu dëll de wax dëgg yàlla ndeysaan